waaw xam nga ñun ñëpp ñoo gisandoo li xew ci pénc mi du fan yii rek ñun bi ñuy taxawal li fekk li xew barki démb amagul bu ñuy xalaat ni dañuy dajee tey di wax ci lii moo jiitu li xew barki démb mais dañoo seetlu ni suñuy ndaw ñi léegi bu ñuy ñaxtu ñaxtu bi day ànd ak toj ak lakk loolu moom du du du àtte du admis yëpp ñun ñëpp koo gisandoo ñu ne waaw lu waral ñan ñooy ñaxtu di toj di lakk bu dee ndaw noonu la mel dañu xool ci yaram kan moo ko yar fan la yaroo ba mel nii ñi gën a seetlu ñuy ñaxtu di toj di lakk xëy na dañoo jaar ci école bi école nguur gi école bi nguur gi xam ne ngi wax école officielle waaye ñi nekk ci daara yi ñi wax ñu yalwaan donc amuñu dara ñoo nekk ci ci ñàkk mësuñu leen gis ñuy ñaxtu bay toj mun na suñu bopp mel lan war a li lu waral xale yi ay ndawal Sénégal nekk ci daara ji dañuy jàng te amuñu dara ci nguur waaye mosu leen dégg ñuy ñaxtu di toj lu waral ñii nag nekk ci daara yu nguur nguur defal leen lu bari waaye bu ñu manqué dara rek dañuy génn di ñaxtu di toj comme ñaar yëpp Sénégal moo ko moom ñaari daara yëpp waaw lu tey ñu xool li baaxal xale yi ba duñ ñaxtu di toj ñu yokk ko ci bi am nañ ko boole ba ñaxtu di toj wàññeeku. ci ci askan wi loolu moo tax ñu daje beneen bi dañ ne waaw ñiy waxtaan ci xeltoog xalaat di weccooy xalaat muy ci rajo yi muy télévision yi ñoom ñëpp daanaka ci école bi nguur gi xam ne li ñuy jóge ñu si gën a bari ñi jóge ci daara yi ci am xam-xam bu ñu leen soxlaa rek mooy bu toj-toj amee bu dëkk bi tàngee ñu leen kaay leen ñaan kaay leen wax ci mooy sëriñ si yaru daara lu ñu yore balaa ñoo nekk sëriñ dañu am yaru daara ñoo jaar ci daara am yaru daara moom kooku mooy sëriñ kooku la ñuy joytu bu jafe-jafe amee ñu ne bu dee lool la comme dañ koy soxla bu jafe-jafe amee dañ koy soxla àjjuma muy ñaan di waaraata lu te ñu boole ko ci waxtaan yi am bés bu ne ci lu ne comme ça mu ànd ci xalaatam ndax xëy na mu yeesal xalaat yi ndax mosu ci bokk ñu ne ko lépp lu ñuy wax lu ñuy wax ci politique lu ñuy wax ci économique ay ñu boole la ci ndax xam nañu ñi jàngee ci daara yi ñu si gën a bari am nañu xam-xam yooyu léegi loolu moom loolu mooy mu bind pour wane ni ñoom ñii am nañ xam-xam yépp yi génne ci daara ju mag ji